asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokki jullit yi mbokki taalibe yi ñu ngi leen di nuyu nuyu lislaam boobu ñu tudd léegi di ci jiital alxalifatul aam sëriñ muhammadul muntaqa di ñaan sunu borom mu yokk ko kàttan yokk ko ak wér yàggal ko ci kanam njaboot gi di ci teg sëriñ bi nga xam ne moom lañu ñu fekk si fii ci ëttub sëriñ Masamba Diop Sam sëriñ Abdourahim di ñaan borom bi subhanahu wa mu yokk ko aw fan yokk ko kattan yokk ko ak wér ba li mu yéene liggéey ci toolu maamam bi ci toolub sëriñ Touba yàlla defal ko ci ay ndam yu kawe njor te mu ànd ko ak mboolem njaboot gi ak mboolem taalibe yi ni ko dayratul mubaaraka baaxoo defe ci at mu nekk ci biir liggéey yu am solo yi ñuy def te mu jëm ci bis yu ñu jagleel ziyaara Serigne Massamba Diop Sam di fàttalante tamit luy mën a jariñ ab jullit rawatina ab taalibe ñu koy waajale nag lu ñu mën a dundalee ruu yi loolu nag ñu tànn ci koo xam ne doonul gan ci jataay bi ndax ànd na ak ñun ci jataay bi ci ay waxtaan ci ay tomb yu wuute tomb yu am solo te am njariñ di Serigne Mbacké Abdourahmane moom moo ñu war a fas yéene indil ab bind boo xam ne ku ko teewulu ci ñun dama ci mën a jële njariñ loo xam ne dana ko mën a yóbbaloo mu fas yéene waxtaane nag yoon wii nga xam ne mooy yoonu murit te ñu tënku ci mooy lan yan fondement ci lañ ko teg lan moo ko yenu ak yan mooy gàllankoor yi nga xam ne dafa ñëw ngir suufeel ko ak ngir indil ko ay gàkk-gàkk te gàllankoor yooyu léeg-léeg mu jóge ci biir yoon wi léeg mu jóge ci bitti yoon wi gàllankoor yooyu nag nan lañ ko mën a fexee ba saafara ko jiima xeex ak moom kon loolu yaakaar naa buñ ko waxtaanee ci barab bu nekk yàlla na fa waaye waxtaane ko ci penc mii tamit yàlla na fi kon ñu ñaan mbokk yi ñu may ko ak déglu ak xerewlu te taataan li nga xam ne dana ko ruusal ci ay njariñ ba buñ fi bàyyi ko kenn ku nekk ci ñun man koo yóbbaloo mu nekk ab làmp bu lay niital saw yoon ba nga xam fi sa tànk kon Serigne Mbacké Abdourahmane bismillah mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu di nuyu di leen ziyaara di tàmbali nuyu ak ziyaar yi di ko sëriñ Cheikh Mawlana Cheikh Mouhamadou Mountakha ñaan suñu borom gën koo sàmm gën koo dëgëral waaye di nuyu baax di ziyaare sëriñ Abdourahim Diop ñu yiite njabootu sëriñ Masamba Diop Samb ñu daje fii ngir di ko ziyaar ak ko fàttaliku di ko ñaanal ñu nuyu baax yi euh, taxawal jataay yi suñuy amal ziyaar bi di ci nafar sunu diine waaye di ci nafar sunu taalibe ñu ngi leen di ziar bu baax di leen ndokkeel di ñaanu sunu borom bépp yëngu bu ñu fi yëngu yàlla na ko yàlla nangu te barkeel ko te jotal ci sunu kilifa yu baax yi tax ñu daje bi Mawlana Cheikh Ahmadul Xadim Sëriñ Massamba Diop Samb ak njaboot gi nga xam ne ñoo ko fi nekkaloon ba tey ñu nekk fi ñu ngi nuyu ñëpp ziar ñëpp. Euh, sëriñ Cheikh wax na tomb bi nga xam ne mbokk yi daayira Mubaaraka ñoo sàkk woon ñu waxtaan ci mu jëm ci yoonu murid bi ñu nekk ak euh, ni ñu ko waxee gàllankoor yi ci kanamam léeg-léeg di ko jéem a teqtal di yeexal ab doxam mbaa sax muy gàkkal léeg-léeg gàkkal mbiram ñu jéem waxtaanee gàllankoor yooyu waaye jéem waxtaanee ku ko bëgg a saafara foo jaar ngir waxtaane loolu nag faaw ñu fàttali mbokk yi yoon wi lan la lan la dëgg-dëgg lu mu doon ak ci lu mu taxaw euh, gàllankoor yooyu it ni ko sëriñ si waxee ñaari xeeti gàllankoor la yoo xam ne ci biir yoon wi lay jógee ak yoo xam ne ci bitti la jógee te yu ci nekk nag mata bàyyi xel mata jàmmaarloo ngir ñu man a àgg fañ bëgg àgg ngir fàttali yoon wi lan la jàpp naa ne mbir saa ci nit nekkee bëgg ca am ndam war naa xam la muy yëngu mu doon faw ñu bàyyi loo xel mbokk ne yoonu murit pas-pas la bu ànd ak yëngu kon suñu bëggee mag ñi ko wuy woon ba ko sëriñ bi wootee te wuy si bu tegu ci xam ba tax ñu jot ca njariñ ya jariñu ja jariñ ci ñu bare bari la waral loolu mooy dañoo xamoon dëgg-dëgg lu mu doon ñu tegu ca kon faw ñu xam ko lépp lu jëy benn jéego bu ñuy séq ñu dara ko mën a séq yoon la woo xam ne li gën a fës ci moom mooy daawatun rabbaniya ak woote boo xam ne yàlla rekk ko lal ci yàlla la jëm ci yàlla la yëngu ngir yàlla la yëngu yi loolu jàpp naa ne mu war a jiitu ci lu ñu war a bàyyi xel woote la boo xam ne yàllaa ko lal képp ku ci nekk dañ la lënkale ak sa borom ànd ak yow di dox jëm ci sa borom ndax nga mën a egg bépp yëngu boo yëngu yi day doon lu lay dimbale ngir nga mën a egg ci sa borom mën a am gërëm moo tax sëriñ bi ci am jàngale teel naa leeral nit lépp loo xam ne yaa ngi koy def ci yoon boo ci bëggee jariñ na koy def ngir yàlla na ko yàlla la julal ci yoonu sëriñ bi yëngu bu yàlla taxut amul njariñ booy wut xam-xam booy jaamu yàlla booy xidma lu mën a na ko yàlla la taallamul ilma li wajhillaahi loolu ñu doon jàngal laa lakum wala xawzakum alhadaaya bu leen di jóg di wut luy tax nit ñi jàng jëm si ci yéen bu leen bëgg a dajal ay hadaaya na ngeen fexe yàlla rekk tax leen a jóg ba muy wax ci xidma daa waxoon ne sax di mu moo turan li wajhillaahi jaam yàlla yi nit ñu baax ñi koo ci dajeel xitmaal ko waaye nag na yàlla tax bu ca séenu njariñ yi àdduna lan nga cee koy defal na yàlla sa borom rekk tax nga di ko def kon yooteem yàlla la loolu nag li tax mat a bàyyiloo xel mbokk yi léeg-léeg nit wuy si ko ngir ay xéewal yum ci gis ñee ñi ci nekk te fekk xamoo ne xéewal googu buuñaa buñ buuñaa ki tënku jaar fu mu war a jaar waaye taxu koo jóg amul kenn ci mag ñi nga xam ne wuyu si woon nañ wooteeb sëriñ bi koo xam ne sam xëy mbaa sa ngoon ngir am benn cër ci àdduna moo taxoon ñoom bañ ñëwee dañoo ginnaawal àdduna ma yàlla seen borom di ci xëy di ci gont ba am na jamono sax bi ñu demee ab diir ba sëriñ bi defar leen ba ñu bari ci ñoom mu fóot leen bañ set duy leen bañ fees sant leen ñu sampu kër am na ci ñu doon wax naan ah ndekete samp kër ci la bokk ñoom jàppoon nañ ne soobu nañ sóobu koo xam ne dara luy nuru ne daal laal ci àdduna war nañ ci wañu ko jëman foofu lañ nekkoon kon ñoom xamoon nañ ne wooteem yàlla la ñu tëb ko loolu nag daa di fàttalee jamono ji nga xam ni nit ñi dañuy wuy si waaye mel ne am na yeneen yu bëgg am na yeneen yoo xam ne day mel ne kuñ toggee tuuti gisuñ ko moo tax ngeen gis am ci ñoo xam ne dañuy ko rek barab buñ nekk askanu ko buñ doxee tuuti jóge fa jàll feneen waaye ku yàlla rek ñor fu yàlla nekk boo fa xasee àggutu doo ko jóg loolu it baax nañ bàyyi ko xel ci woote bi ñaareel ba woote la boo xam ne yi ëppul yeesu dafa digg doomu loolu mooy lislaam lislaam bokk na ci lim gën a ràññ ko wasatiya ummatan wasata aw xeet la woo aw diine la ñoo xam ne dafa ne ci digg bi sëriñ bii ba mu ñëwee woote boobu la andi woote boo xam dafa digg doomu ëpput yeesu dafa jël nit ak li nit ëmb nit ruux la aku yaram daana am ay nit ñu baax ñoo xam ne dañuy wooteel yàlla waaye day ñëw notal genn wàll ñu nekk daanaka ay ruuxaani yoon a kese rey yaramu nit ki léppam di ruuxaani lu baax la waaye nag du lu gën ndax nit ñaara ko seq bu ci benn soxee rek mu feeñ ci moom am ñoo xam ne dañuy notal màtta gi tàggat yaram bi ba mu sawar lool waaye nag ruux gi ci dara sëriñ bi ñëw nag indi woote boo xam ne day boole ak ruux wal màtta day dundal ruux gi jokkale ko boromam suuxat ko ci xam-xam waaye dundal yaram bi ci sawaram ak yëngu ak di jëf ngir nga xam ne kuñ ci yaram bu nappee dangay am digg ak digg doomu moo taxoon mu doon jàngale ne wala takun mufarritan aw mufrita bal istaqim fi sunnatin wa qsita loolu la ñu jàngaloon euh, kon loolu it jar na bàyyi xel kon yoon la woo xam ne sëriñ bi da koo lal ci ak digg doomu la xadis euh, ba waxoon na ngay liggéey na ngay bàyyi xel àllaaxira ba mel ne suba ngay baabu waaye bàyyi xel àdduna yi ndax ay tool la ba mel ne doo fi jóg kon dañoo soxla nit koo xam ne yàllaa koy ñor waaye nag liy tax moom yàlla fii ci àdduna la nekk kon dana bàyyi xel àdduna waaye nag bépp yëngu moom ci yëngu yàlla rek ay waaye du toog di du sukkandiku ci ñeneen du bayiliku du ginnaawal ndax dëddu àdduna du rek sànni àdduna waaye da ne ci biir àdduna di yëngu na war a yëngoo waaye nag àdduna du lu tax yëngu loolu bokk na ci li yoon ràññi ko moo taxoon ba naaru gànnaar bay tagg sëriñ bi loolu la ko wax ne sa yoon bi jub gi nga fi indi njub ne ci digg bi la ab pour yeesu bu fekkee ne am na ay sufiyanke yoo xam ne dañoo xatal mbir yi ba mel ne tuuti la dara nañ àdduna laalu ci àdduna kenn waru ko jege fenn nit ki day nekk salbi yi doo amal njariñ àdduna kenn ko tey wala ak faqih boo xam ne moom day yaatal lépp lépp mu daganal ko sëriñ bu mu daane ci digg bi hidaayatuhu qasdun ida dayaqa alladi tasawafa jahlan aw tawassaa bil fiqhi loolu la waxoon sëriñ bi ne ak njubam moom ci digg bi la nekk bu amee sufiyanke bu xamul tasawuf ba tax mu xatal ko lool wala faqih boo xam ne da koy ëppal ba yaatal ko lépp mu ko sëriñ moom nekkut fee nekkut fii ci digg bi la nekk loolu yi baax nañu bàyyi ko xel ci yoon ñetteel bi ci li ñu war a bàyyi xel ci yoon mooy wooteeb tasawuf na tasawuf mooy wooteeb ihsaan nit ki day nekk gu gëm yàlla di jaamu yàlla ci lislaam waaye teg ko ci tasawuf tasawuf mooy ngay jaamoo yàlla benn ci ñaari tànk yi tànkub mushahada wala tànkub muraqaba an taabudallaha ka annaka tara fa in lam takun taraahu fa innahu yarak jàppal yaa ngi jàkkaarloog sa borom mu lay digal di la tere na ngay tënkoo na bàyyi xel yàlla dootoo wa bàyyi xel dara loolu mooy bi jiitu boo ko mënul foo mën a nekk bàyyil xel na yàlla ngi lay gis lépp looy def doo tëjuwoon ci barab làqutu yi yàllaa ngi lay gis moom ngay bàyyi xel yàlla moom jaamu yàlla gu mel noonu moom la tasawuf di woote kon woote tasawuf la tasawuf boo xam ne nag day benn le day ñëw yu baax yi tasaaroo woon ci gaañu baax yi mu ñëw dajale ko ci yoon bi kon daawa boo xam ne jaamia la mboolem fu lu baax baaxee sëriñ bi dugal na ko ci yoon bi ni lislaam doone xulaasam woo ka day jiitu woon di wootal yàlla suñu borom dëxëñ lépp ci lislaam yooyu yëpp nag ña ko doon yeesal di sëriñ bi dëkkee day jëlaat seen yu baax yooyu dëxëñaat ko ci yoon bi kon lu baax lépp mi ngi ci biir loolu it doon lu mat a xel loo xam ne suñ ko xamee noonu ñëpp la ñuy àndal ñëpp la ñuy yéen a jàpp moo tax bokk na ci am njàngaleen ab murit taalibeeb Sëriñ Tuubaa du noonu ab jullit wala tuaadu man raaytum faahu yuxriju laa ilaha illa ku gémmiñam di génne laa ilaha illa bu leen ko noonu bu loolu mooy wooteeb sëriñ bi di wax ne taxaababo fillaahi dil jalaali bila tanazuin wala idlaal na ngeen di bëggante koo ci dajal muy jullit na nga ko bëgg bul yam rek ci jàppe ko jullit waaye na nga koy bëgg di wax ne xubbu jamii al awliyaa xubbu jamii awliyaa ay wajaba wa kullu man aada xiyaara xujiba ne nit yàlla yi bëgg leen daa war képp ku noonu nitu yàlla ñu yiir la ba xéewal yi njariñ yi yi doo jàkk kon moom da doon woote woote bu matale boo xam ne fu lu baax baaxee eh, dañoo sant murit bi bu ci rombee mu jariñu ja moo tax mu doon wax ne wa amma ahzabul aqtabi wa daawatu saalihina fa adintu lakum jamian fi l amali bi kulli ma tayassara lakum minha xaytu wajadtumu yu baax yi fi gaa baax ñi bàyyi woon lu ngeen ci fekk lu ngeen ci mën a jariñoo jël leen jariñoo boole leen koog li ba leen di jox loolu moo doon diggalam kon lu baax fu lu baaxee rek mi ngi ci biir yoonu sëriñ bi loolu it jàpp naa ne baax na ñu xam ko ba booy dox bul mukk romb mukk lu baax fenn nga jàpp ne du fi sëriñ bi ndax lan dañuy tudd loo loola di keneen fu baaxee rek xamal ne mu ngi ci biir sëriñ kuñ ko mën a askanit sëriñ bi am na ci wàll loolu it baax na loolu bàyyi ko xel foo dajee sa mbokk jullit it jàppe ko sa mbokk ndax sa sëriñ nee na almuminuuna ixwati wal muminaat lii axawaatun wa xayaati xasanaat way gëm yàlla yu góor yi ak yu jigéen yépp samay mbokk lañ sama dund gi aw yiw la ñeel ñëpp lu baax lay jëme ci ñëpp daan ñaan yàlla wa axrina ya rabbana bil xidma lil muslimina abadan wa rahma maa ngi lay ñaan nga xéer ma ji liggéeyal jullit nga xam ne kon taalibe it fu mu dajee ko jullit rek na jàpp ne da ko war a liggéeyal ndax lim koy defal moom moo ci jariñu ab taalibe lu mu def ci lu baax bu mu jàpp mukk ne nit la ko defal la cay juddoo ci njariñ boo léegi ci yow lay dellu si loolu la ñu bi doon jàngal ci woote bi waaye dina jàngal woyof bañ a yëkkati sa bopp ci kaw keneen àgg na ci wax ne saa boo jàppee ne yaa gën kenn te bis penc ci ñëwut ba nga mucc ab jaayin ku dese nga tey seytaane jaay na la in taxju annaka du fadlin ala ahadin qabla najaati gadan min ay insani faalam bi annaka du jahlin wa du safahin wa jaaka al ujbu wa stidraaju sheytaani loolu la jàngale ab tënk la ñu xam ne yoon wi lu leer nàññi la lu baax lu dajale yu baax yépp la waaye yëfi yàlla la ci yàlla dong la jëm ku ci soobu it te wàccoo da nga àgg ci sa borom xéewal yépp nga jot ci lor yépp nga mucc ci yàlla mu taxawal ko nag moom sëriñ bi ci ñetti mbir yoo xam ne it yu mat a bàyyi xel kuy kuy ku ku ne ci yoon wi war nga ko bàyyi xel xam ne bu bu yoon wi taxawee ci yooyu la la taxaw ba ci njëkk mooy xam-xam bu am njariñ yoon wii yoonu xam-xam la mbokk yi sëriñ Tuubaa ci xam la ko laloon mag ñu baax ñi àndoon ak moom ci xam lañ àndoon ak moom ñoom sëñ Samba Diop Samb ñi ay borom yi xam-xam ñu jàng alxuraan ba mokkal ko jàng xam-xam ba wan wannu lef mar yàlla gis ne sëriñ bi rekk mën a màndal seen mar woowu ñu bàyyi ñëw ànd ak moom ji loolu waaye di dund moom diine ju baax ju sell jooju di dund mat googu loolu mooy leen boole woon ak sëriñ kon yoonu xam-xam bu kenn jàpp ne yoonu daa nekk fee xam-xam nekk fee xam-xama ko lal te jàngale na ko ci barab yu bare bare bokk na ci ay ndigalam kunu ma'an fil ilmi bii yéen ñëpp na nangeen bëgg xam-xam daa ko faral di wax sëriñ bi bu nee kunu ma'an kenn génnu ci yéen mag ñi yéen ndaw ñi yéen góor ñi yéen jigéen ñi yéen ñi baaxoo woon a jàng démb yéen ñi nga xam dañoo jàppoon ne jàng seen mbir kunu ma'an yéen ñëpp kunu ma'an fil ilmi raghibina na ngeen bëgg xam mi nga xam ne ni yàlla rek ngir yàlla mi nga xam ne bu diine taxawee xam-xam a ko taxawal kunu maan fi lilmi raaxibina li wajhi man bihi yuqimu diina fasaariu lil ilmi ajmaina li wajhi dil jalaali xaasidina ba mu dénk taalibe yi yaa muridu bit taallumi bi sama dénkaan ci yow mooy na nga jàngi na fexe ba xam ndax mooy tax nga xam sa bopp xam sa borom xam say moroom xam ñi dul say moroom tàggalikoo aku réer tàggalikoo ak i lëndëm xam-xam leer la kon fexeel ba nekk ci leer gi loolu yi mat na bàyyi xel baax a baax ci jamono joo xam ne am na ñoo xam ne dañuy jàpp ne xam-xam leneen la feneen la nekk Sëriñ Tuubaa lim daj ngir am xam-xam lim daj ngir tasaare xam-xam lim ngir bëgg njaboot gi xam kenn xamutum toll téere yi mu taalif am jot taxul koy taalif bëgg a wane xam-xam taxul koy taalif bëggoon nit ñi jariñu rekk tax bëggoon nit ñi jariñu xam-xam jaraloon na ko téere bi mu njëkk am am mbubb ci jamono yu mbubb jafe moom la joxe ngir am téere boobu ku ñoroon na ñaareel ba xam-xam bu ànd ak jëfe mooy jëf moom lay tuddee al amalu saalix al amalu saalix nag sëriñ bi dana ci jublu li ngay defal sa borom li koy tuddee ibaada fexe ba li yàlla bëgg na ne ci waaye dana ko wax jublu ci it liggéey fàggul la ndax ci biir jàmm yàlla la bokk dana ko wax jublu ci xitma lëggéeyal jaami yàlla yi ngir yàlla kon baatub amalu saaleh ibaada la kasbul xalaal la xidma la yooyu it mat na bàyyi xam ne yoonu yooyu yooyu la bool da nga xam li nga war a xam waaye dangay ngay jaamu yàlla waaye dangay ngay liggéey ndax jaamu yàlla gi ngir mën a sotti da ngay liggéey ba am loo suturloo am na ci jaamu yàlla yoo xam ne ala la koy def nga mën jaa taxaw mën jaar waaye ngay jaamu yàlla ci jaamu yàlla yi di xitmaal nit ñi di leen jëriñ ngir yàlla roy sa sëriñ ci doon jëm doon xadimu rasulillah yow itam nga jéem a nekk xit xitma jooju nekk ci yow loolu faw nga am dara loolu ko man te ngir nga am dara baax na ci loolu nga yëngu kon euh, sëriñ bi jàngal nañu nañuy nangoo sonn ndax noon nañu yaakaar na te te jaamuwoo yàlla nee na ak waru la rajaau jannatin bila taati bi sunnatil maahi gururun yati loolu lañuy ñu euh, waxoon na it ne inna al ibadata hiya al xidma inna al ibadata hiya al xidma wa bokk na ci jàngale wax ne liggéey bi mooy jaamu yàlla yi ñu def nii muy kër kër yi yëngu-yëng yi ci yëpp day dañuy dimbali ci mën a jaamu yàlla daa cee teg ne qu anfusakum wa ahlikum naaran fexe leen ba musal seen bopp te musal seen njaboot ci sawara kon loolu it baax na bu ñuy waxtaan na yoonu ñu bàyyi bàyyiloo ko xel ni bokk yi kon yoonu xam-xam la taxaw ci al amalu saalih la taxaw te mooy ñett yooyu ma wax léegi waaye ci ay teggin la taxaw yoonu teggin la sa digganteeg sa boroom sa digganteeg sa bopp sa digganteeg sa moroomi jaam yépp yoon la woo xam ne ku ñàkki teggin bokkoo ci ay teggin ku ko ñàkk doo jëm fenn lu ba sa xam-xam bari bari lu sa jaamu yàlla bari bari bu ënt ki teggin doo ko jariñoo fa kasratun ilmi bi xayri adabi jaalibatun ilal ada wa bi la waxoon xam-xam mën naa bari lool waaye su borom amuti teggin du ko jariñoo moo tax yoonu teggin nit ki am ay teggin ma sëkk ci ñi ko wër ñëpp sëñ bi soññee ci loolu wax ne yoonu teggiin jàngal nañu ko tàmbalee ci yërëm ndaw ni ko bàyyam ak yaayam yërëme wekk mag wormaal ko sa moroom nga def ko ne sa bopp fu ne jàngale na ko fa kon ami teggiin sa diggante ak sa borom ba rus yàlla gis la fu muy tare ab jaamu su amee teggin di ko borom rus a taxaw di mooy yàlla ndax xam ne yàlla nga koy gis kattanam àgg na ci mën na koo fekk fi mu nekk toroxal ko wuññi awraam kon bu la suturaale war nga am teggal sa diggante ak moom am ko ci sa bopp boo wéetee sax xam ne ab jullit nga bu jilif du nu la neex ngay mel du nu la neex ngay tëdde wala nu la neex ngay solo jaam ñi la séq yi ñett ñooñu la ku la mag koo mag koo maasee ku ci nekk sëriñ bi wax la noo ko war a def koo mag ku ne daf jàppe ko doom amal ko ëmbal ko yërmaande ak cofeel ak ñeewant ku la mag ku ne yow daf ko sa kilifa commencé daf ko sa bopp nee na yoonu teggin mu ko kon ñi nga jëflanteel kenn ku am nga foo teg nit ñi jàngaloon nañu ne bokk na ci teggin nga xool ci ñoom àq yàlla lu la nit mën a def bala ngaa yedd nit ko yeddal sa bopp bu dee dalaa lor war ngaa xalaat ne waaw lu ma def ba tax yàlla na toog ma sama moroomu jaam di ma lor fu muy am teggin sa diggante sa borom lu baax loo tàmbali ci lu baax nga fës ko yéene bokkul ci ay teggin man ñu baax baaxee dañ koy wax nga tàmbali lu baax ba noppi jékki-jékki bàyyi ko ci loolu ngànt kon loolu it bu bàyyee ko xel kon mbokk yi loolu mooy murit dëgg-dëggam wax naa ko du ci tënk naa ko waaye tënk naa it yim taxaw xam-xam la amalu saalih la al adabul mardi la loolu faw ñu di ko fa bàyyi xel mbokk yi ci jamono ji nga xam ne léeg-léeg yu ci nekk am na nit ñoo xam ne ko jël teg fële am na ñoo xam ne ngànnaay li yor mooy ngànnaañu ñàkk teggin ñaaw làmmiñ lépp lu ñuy am ci wax lu bon lañ koy amee yonentu yàlla muhammad alayhi salaam noonu na yées ci nit ñi mooy koo xam ne nit ñi dañ koy moytu ngir làmmiñam wu ñaaw te am na tey ñoo xam ne seen ngànnaay li ñuy wute àdduna mooy làmmiñ wu ñaw nit ñi di leen jox ngir ragal leen di leen moytu ngir ragal leen te loolu tus dafa dàqoon tey yoonu sëriñ yoonu sëriñ yoonu teggin la di wax lu rafet waxoon ne niyatul xayri wa qawlul xayri wa fi'lul xayri da ngay yéene aw yiw di wax aw yiw di jëf aw yiw loolu loolu moom la waaye wax ju ñaaw du ndam du ngóora ku am làmmiñ rek man na ko waaye du ndigal ndigal yàlla mooy wa quulu linnaasi xusna dee leen wax lu rafet dee leen wax lu rafet kon loolu it taalibe fu ñu mën nekk nañ bàyyi xel loolu mag ñii raw seeni moroom gën leen ba tey ñu jóge fi lu yàgg di am ay ndam yu dul jeex la leen ko may mooy loolu di rafetal di ko ci jëf ci yéene ci wax ba tey ji seenu yiw di dolli bu ndax lu baax lañ fi suuxatoon jikko bi tey ñu bari ci ñoom ba ñuy nit wuj wujj yàlla seen borom barab yi ñu bàyyi woon yokk na ci wàllu yàlla yokk bu fees boo dikkee fekk fu jumaa ju rëy bu julli jotee mbooloo daje fa saa bu ñu koy fàttaliku di jàng alxuraan di jàng xasida di tudd salaatu ala bi yu baax yu bari ñu di ko def ngir yàlla loolu lu mat a bàyyi xel la. loolu. kon loolu lu lu mat a bàyyi xel la. ñu war koo teg suñ kanam xam ne dañ ñoo wax loolu rafet ay teggin moo laaj ngay rafetal jëme ci ñëpp bu nit ñi ñaawal sax de rafetal. bu nit ñi ñaawal sax deel rafetal ndax rafetal dana soppi nit bari waa nag koo xam ne tey taxawaay ya mujj am ci sëriñ bi ak yoon wi ay mag la dëkkal ñu rafetal jëma ci moom ba mujj mu soppiku ndax ahsin ila naasi tastaabid qulubahumu fa taalama staabada al insaana ihsaanu loolu mag ñi loolu lañ xamoon ba nekkal yàlla ba tey am ay ndam jóge fi lu yàgg aw yu wu jeex di wàcc seen kaw ndax dañ rafetal waaye ña doon ñaawal amuñ loolu kon amuñ njëriñ su ko defee yoon wi nag mu ngi noonu waaye nag am na ay gàllankoor yoo xam ne ñun ñëpp ñoo war a ànd ci jàmmaarloog gàllankoor yooyu waaye nag pour man mën a jàmmaarloog moom faaw ñu xam danañ ko tënk ci ñaar yenn yi ci biir yoon wi la nekk yi ci des ci bit lay jóge wax nañ ne maam Cheikh Ibrahima ci biir lay jóge mooy kon am na ay gàllankoor yu jóge ci biir yoon wi loolu lu mat a bàyyi xel la kenn ku ne ci noonu fas yéene bu mu doon kami jaara ci moom ci yooyu bokk na ja loo xam ne gàllankoor la moom umpale yoon bi bari ci noonu ñu ngi ci biir di ci dund di ci xew waaye bu ñu la laajoon ne la waaw li sëriñ bi doon woote dëgg-dëgg lu mu doon boo ci dajaloon ñaar wala ñett kenn ku ne nga laaj ko duñu bokk lu ñu wax te mbokk yi dëgg genn lay doon kon su ñett xam la yoon li bokkul duñu wax am na ca ku waxut lu leer lan mooy yoon wi Sëriñ Tuubaa lu leer nañ la indi mag ñii ci lu leer nañ leen yaroon lu leer loolu dañ ko war a xam te wax naa ko tàng leen yoonu yàlla la du mbirum alal du mbirum àdduna du mbirum mbooloo yooyu yépp yu gaar nit ñi la sëriñ bi tàggat kilifa ya sant leen ñu ànd ak mbooloo mi ngir yóbbu leen ci yàlla moo tax mel mbokk daan wax ne seexal takk taklif la gën a doon ci tashrif dañ la responsabilisé ngir bëgg nga waaye du rek taraanga joo xam ne da ngay ñëw di ko xewloo loolu lu ma ta bàyyi xel kon yoon wi dañoo war a xam lu mu doon pas-pas bi mu la lan la ci lan la sukkandiku wéetal yàlla gu dëggu xam na yàlla rek mooy yàlla ay melokaana moom rek moo ko sëriñ bi jàngale la ko fu ne ci lu ne wax jàngal la ko nit ñi amoon na mag moo xam ne njaambur gi la dëkkoon bi mu ci sëriñ bi daf daan faj nit ñi wér di wér di xel sëriñ bi laaj ne ko noo koy defee mu ne ko jinne yi nga xam ne ñooy gàllankoor ñooñu lay lay waxal sàkku ci ñoom ñu bàyyi ko bu ñu lànkee mu wax wooy wax yeneen jinne yi ñu dimbale ko dumaale ko kii ko jàpp mu bàyyi ko sëriñ bi dana ko loolu istiaana bi xayrillaahi la bàyyi ko loolu dimbandikoo kul yàlla ndax day mel ñooñu ngay dimbandikoo boo lëggee mën la laa sant dara yooyu tam kon foofu laa goon ci tawxiid gis ngeen man zanna gayra allahi yughni aw yadur fa daaka fi daarayni du kaddin wadur bay boobu nga xam ne Cheikh Mahamad taxa ci ginnaaw santaane woon na di ko di ko jàng di ko bàyyi xel tawxiid ju sell la bëgg ñu bàyyi ko xel kudul yàlla kudul yàlla mënul nit ñi dara moo tax gaay yàlla yi ku bëgg am ci yàlla cër da ngay jaar ci ñoom tawxid jooju moom la yoon wi làmboo mag ñi ci nekkoon ñëpp wéetal seen borom rek la doon def mosuñoo jaawale seen borom dara fu ñu mën a nekkit yàlla lañ fi nekk fu ne it ñi mën nañ faa dem ci ñu bari ci ñoom àll yi ñu doon toj dañ koy toj booba ñu bari ñi mu wuñ waaye nag dañ doon liggéey ngir yàlla doyloo yàlla lu ci yàlla wóolu loolu it mën na bàyyi xel waaye yoonu yi dox jëm ci yàlla la du yoonu yàccaaral du yoonu tawaakul bàyyi bàyyi lépp gis nga mag ñi ko laloon ñi ko sosoon ginnaaw sëriñ bi am noppee ci ñoom ñoo tasaaroo ci àll bi suba ngoon guddi bëccëg ñu ngi liggéey kenn mos ci dox dox loxoy neen jàngal njaboot gi liggéey leen ci lañ doon nekk amul noppul guddi ak bëccëg ñu ngi liggéey kon yoonu liggéey la waaye luñ mas a am liggéey du du ngir denc ko jaamu ci yàlla jaa jariñ ci jaamu yàlla yi di ci def ndigal yàlla yi di ci joxe hadiya ngir ñu yóbbu leen ko ci yàlla kon loolu it jar na bàyyi xel kon umpale gi gàllankoor la faw ñu yar ndaw ñi li jiitu ci ñoom xamal leen waaw lii sëriñ bi doon woote lan la lii sëriñ bi doon woote lan la ku ne ci yow laaj ko su bopp boo beroo laaj ko su bopp boo amee jaaxle ci tontu rek war ngaa xam ne war ngaa dem jàngiwaat ñaareel bi boo xoolee te yoon wi am na ay kuréel ay ittijaahaat yu wuute yoo xam ne ñenn ñi dañuy foog na yoon wi daal mbirum ruuxaaniya la dara rey àdduna bokk ci liggéey yépp du ci dara yow daal toogal di werd di gudd jàng lu jeex alxuraan wala ngay xasida amul leen looy def sa liggéey bépp doon lool mag ñu baax ñi fi àndoon ak sëriñ bi dañ doon jàng alxuraan di jàng xasida di wérd di julli waaye dañ doon liggéey mbokk yi dañ doon liggéey faw ñu bàyyi xel ci des ñenn ñi jàpp ne moom yëngatub liggéey na bari wutal alal mën joxe addiye waaye nag amoo dog booy wérd jàngu alxuraan ñoru yi faw ñu boole ñaari yoon la woo xam ne daa ëmb ruuxaani yi ëmb màddi ya dañuy jël madda ngir dunde ko yàlla loolu it ñu bàyyi ko xel baax baax beneen bi ci gàllankoor yi wax naa sànq ne yoonu diggu doomu la daane ci digg ëpput yeesu am na nag ñoo xam ne dañoo bëgg a dévier loolu ñi bëgg ko ëppal ñi bëgg koo yeesal am na ñoo xam ne foo leen fekk ñoom jàpp nañ ne lañ nekk dong dong baax kon nañu doon ay wérdekat jàpp nañ ne ku wérdul nekkoo ci dara ñenn ñi nekk ci ay tool di liggéey jàpp nañ ne ku liggéeyut nekkoo ci dara ki ne ci dara mooy ki boole tool yi ak wér kurus gi yépp lañu soxla ndax lu ci nekk daa am lu muy defar lii yaram wi lay defar lii defar yi bu ci lenn jageete la ci jë la ci des du tax nit ki jag loolu it gàllankoor ba ci seen la au ñu boole ñaar yëpp ñii beru ne ci lee dong ñee beru ne ci dong kenn du ci am yar bu mat kenn du ci mën a dab mag ñi ndax mag ñi doxewuñu woon mag ñi dañoo boole woon ñaari tànk yi kon ku ci jor benn tànk boobu doxe rek sab dox dana yeex te doo am fa doo àgg fa nga bëgg bokk na ci ba tey gàllankoor yi bii ab yi xam nga mag ñi ridwanullahi alayhim ba leen sëriñ di di yar ci diggante Mbàkke Kajoor Mbàkke Bawol Daaru Salaam Tuuba booba jaww ju sell moo fa nekk jaww ju sel ju raxul dara wax nañu bi mu sañcee Daaru Salaam bu sëlmalee timis mooy jiite sikkar si ñu sikkar ba gee ñu dugg ci jàkka ji julli door dellu ci kër yi bu guddee ña ngay naafil ña ngay jàngal Alxuraan bu ñu xëyee ña ngay dem liggéey waaw jaww ju mel noonu nit ki bu ñu newoon bu ñu ko waxutoon dara it ba ko fa rek day baax ndax la lu baax dong lay dégg moom lay gis te wallahu axrajakum min butuni ummahatikum la a shay'a la wax wa jaala lakum sama wala busa wala fida kon asama wala abusaar ci la mbir yi jaar di dugg ci xol yi kon nit ki buy dégg lu baax dong li gis lu baax dong faaw mu baax loolu moo tax environnement bu baax baax moo tax Sëñ Tuubaa doon sanc àll yi mag ñi doon doon sanc ku ci mës a ñëw ci dëkk da ngay dem ci pegg dëkk ba wala ci àll ba nga sañ fa jàkka ja daara ja tool ya ngeen di jaamu yàlla di liggéey jaww ju mel noonu nekk léegi nag écran yi écran yi talwiis na jaw ji léegi tey àll yépp ak taax yi ñooy lay xew fépp mu àgg fépp moo tax yar gën a jafe ndax jaww loolu loolu gàllankoor la ndax ndaw li nga mënoon a jël yóbbu ko ci àll ba rek bu bëccëgee ay nodd lay dégg ay sikkar ay jàng xasida léegi ndaw ñooñu nga yóbbu ci digg àll ba ay caaxaan am tëgg am pecc làmb musique yooyu lay dégg ndax écran foo nekk ma nga fa te yooyu lañ koy jox moo tax yar gën a jafe loolu ci suñu kanam la nekk lu jafee defar loo xam ne ñëpp ko war bàyyi xel lépp ko war bàyyi xel lu baree bari tey ci njaboot gi nit mi ngi yor ak njabootam tëj leen fenn naan man samay gone duñ génn xamuñ dara lépp la ñuy xam loolu nga foog rek ndax jumtuwaayu xarala yi tey soxlaatu tukki mën ngaa toog fi nga toog di xam li xew lépp di gis lépp te ñoo ña ko yor diine lalut seen mbir moo tax lu bon la ñuy gën a wane loolu gàllankoor bu maga a magal bu ne ci suñu kanam beneen bi ci des sëriñ bi ñii mu àndaloon bañ mel ni ñu mel dafa leen a yar ci himma ba mu wootee wootee ma daa waxoon ne ku fi jàng rek indi woon te mu jawoo ñu baax la woon de waaye boobu sëriñ bi gën la bëgg mu ne ku fi jàng rek indi nanga dem feneen waaye nag ku bëgg a dox sunu doxin na toog ñu ne ko jox ko ndigalul rabbi asxaabaka bil himma mu fexe ba nit ñi am yitte ci yàlla seen yitte kawe yitte ju kawe jooju ne daa mel ni yaratuñ ci yaratuñ ci lu bari loolu ba tey daa mel ni yaratuñ ci daara dafa doon boole jàng alxuraan jàng xam-xam ñu tarbiyee sa ruux sëñ Bachir nee na ci menul baax xadim ak sëñ Mouhamed Lamine Diop Dagana yi wax na ko ci Irwa sëriñ bi mag ñooñu mu àndaloon ci xiifal bu metti ak sikkar su sax su yàgg ak julli gu sax ak liggéey bu metti ci la àndal war a ñoom nga xam ne kenn dawul nopp léegi ana ana loola ana loola loolu daa war a sax di wéy ngir ñoo mel na ñooñee bu àgguti ñooñee it am ñu leen nur dara bon loolu it jàpp naa ne gàllankoor ko ci suñu kanam la bi ci nag yoon wi benn la woon yoonu benn benn sëriñ la amoon di déglu leen ndigal muy sëriñ Tuubaa la mag ñëpp koo dem ci këram doo ko xàmmee kër ka ca des programme benn la woon léegi nag bu nee ba kenn ku ne di duufal sa bopp di xëcc sa bopp day mel ne loolu it nga xam ne kenn waxatul lu jariñ lépp yu bari de lañuy wax si bopp lay jëm waaye fexe ba nit ñi xam ne li ñuy bare bari li ku bari benn sëriñ la genn kilifa la ñi ci des ñëpp nekk ay njaatige ci ronam di jottali ndigalam jam yilif waaye sowukaay benn la buñ ko déggee noonu dana am solo waaye ku jàpp ne yow rek keneen bokkul ñuy dox di loo xam ne mës ñor mag yi maanaam ñoom bu ñu mësaan daje ku ci daje kenn dangay jàpp ne yaa ko gën dégg ngeen xis boobu ñuy wax bi amee genn ci kilifa yi kuñ denc ba noppi sëñ du mu Moustapha wax safóoram ne ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ak sëñ Ndaam moom daa boo ñëwee nga fekk ma dara ko doos mu dem ci sëñ Mbàkke sëñ Mbàkke ne ko demal sëñ Ndaam ndax moo mag ki yoon bi mu dem sëñ Ndaam ne ko demal yóbbu sëñ Mbàkke ndax moo ma gën a jege sëriñ bi nga xam ne ñoom kenn ku ne mu ngi wut ab passé bu mu la wandale yaa ma féete kaw yar loolu moo doon yarub sëñ Tuubaa waaye ku jàpp ne yow dong keneen baaxul yow yaa baax loolu jafe-jafe la boo xam ne faw ñu weesu ko faw weesu ko ngir door ma mën a àgg fi jëm euh, ba bokk na ci yooyu euh, baat nekk benn léegi léegi léegi day xew au lieu ñu déglu kilifa gi mu wax lu mu wax ñu jëfe ko ku ne day daal di bëgg a joxe ndigal bëgg sax kilifa gi buy joxe ndigal na doon na doon lii te fekk yow saw gis nga joxe mag ñi kenn daawuñ ab jataayu murid dañ daan toog julli dong bu jotee ñu ne jóg leen julli dañuy am jafe-jafe ci kay jiite kuñ joxañ mu joxoñ keneen loolu noonu mbokk yi jàpp naa lu mat a bàyyi xel lu mat a lu mat a beneen bi ci des nos am nañ jafe-jafe nos nos suñuy mbir am nañ jafe-jafe nos suñuy mbir bari na yoo xam ne lépp a ngi fi lépp waaye nag buñ ko nosut nañ ko war a nose du mën a jariñ la mu war a jariñ moo tax yépp lañu war a noos léeg-léeg sëriñ Fallou Diop mii di yittewoo jumaa yi ci Tuubaa ci jàmbar lool koy ziar waaye léeg-léeg nga dox bu yàgg nga gis ñaari jumaa yoo xam ne nañuy jege bu nos amoon du jege noonu diine gërëmut loolu te it aajo ji it demewut noonu waaye ñàkk koo nos dana tax loolu di am loolu misaal la ci dawaa iri yi am am daayir yoo xam ne la ñuy dox waroon nañu ma nekk benn ndax seeni muhima sorewul waaye day mel ne ku ne day bëgg say bopp loolu yi léeg-léeg moom lu mu gàllankoor ñi teewal sëriñ bi ci dëkk yi danaa daal faral di wax ne représentant sëriñ bi war naa mën a wuutu sëriñ bi ci jàkka ja wuutu ko ca xam-xam ba ca daara ja ñu mu koy wuutoo ca jataay ya loolu jàpp na ma di bàyyi xel fu ne war na am lu mel noonu ñoo xam lu ñu soxla ci ci yoon wi rek am ko ko mën a taxawee nos yu mel noonu dana yombal lu baree bari waaye bu fekkee dañuy dem ba ne boo soxlaa ci sëriñ bi dara faw nga dem ba Touba dara koo xam loolu day yéexal dox bi loolu ci gàllankoor yi la bokk mbokk yi. loolu lenn la ci gàllankoor yi nga xam ne mi ngi ci biir yoon wi moom ci bokk xëy na xataa waxtu wi tax na doo mën a tuddi waaye loolu ab junj la mën nañ cee dégg yeneen lu bari bu dee ci bitti nag gàllankoor bi gën a rëy. te war a soxal ñëpp mooy li ñuy tuddee mondialisation àdduna ju ubbi ji nga xam ne tey benn dëkk la lay xew Washington waa Daaru Sam dañ koy yëg jamono ji mu xewee te ñooña lu ëpp ci ñoom lu baax nekku fa mbaa bokk duñ ko wane lu bon la la ñuy wane njaboot gi di ko gis jigéen ñi di ko gis boroom xel yu gàtt yi di ko gis ñooña bu fekkuñ ñu waajal leen. lal leen loo xam ne danañ mën a segg mën a tànn yàqu dafa yomb mondialisation défi bu mag a mag la bu ne ci kanam àdduna bépp la rawatina lislaam ji rawatina yoonu murit ndax dafa baaxoon lool yomboon lool nga dajale taalibe yi fii rek ci Daaru Sam daara ji jàkka ji kër sëriñ bi tool yi diggante boobu nit du fi yàqu léegi nag écran bi rax na leen bu doon écran bu mag sax nga xam a da ngeen dajaloo fenn waaye léegi ab téléphone bu ndaw bu ndaw ngay yor te ñu sëb néeg di xam li xew ci àdduna bépp ci foo xam ne néew na ku la mën a contrôler kooku liñ ko mën rek mooy waajal ko ba bu beroo it tànn mën a tànn lu baax waaye mënatoo takk ay bëtam mënatoo ko téye fen ndax àdduna ko fekk si waaye nag man nga koo yee ba nga xam ne saa bu gisee ñaar tànn la gën bu wéetee it dana xam ne wéetul am na ñu ne ci kanamam di ko seere ëllëg te ñi ci jiitu ay cëram ak malaaka yi màndal kon mondialisation défi bu mag la bu ne ci kanam ñëpp ñëpp ko war a waajal waaye boo jàppee ne dara xewul gone yi indi naa leen ci kër gi ñu ngi jàng am na ci ñoo xam ne buñ xëyee jàng bu ngoonee ñu dem seetaan lu màbb lañ jàng lépp saa boo leen wooyee joxe ab dars ci jikko lu mu baax baax bu ñu génnee seetaan ba ñu déglu loo xam ne mooy màbb la nga tabaxoon lépp loolu défi bu mag a mag boo xam ne nañ ci suñ kanam kon nañ waajal ndaw ñi bañ mën a tànn mën a xàmmee luy lu baax ak luy safaan loolu moo fi sës tawféex ci mag ñi amoon am environnement bu baax lu baax dong fa nekk bañ të ñu tull lu bon du leen jege fenn fu ñu mës a fanaan bu ñu xëyee tàmbali soppi nit ñi léegi nag bi boobu moo xaw a jafe léegi ndax ubbi ko àdduna moo ñu moo ñu ko teg ba ci des nañ xam ne défi la bu ne ci suñ kanam li ñu tuddee tasum xabaar i'lam communication rawatina boo xam ne dafa noonu dafa laa noonu dafa mel ne sëriñ bi ak li mu wootee bari na ay kër yi tasukaayu xabaar yoo xam ne seen xëy seen gont mooy xeex ak loolu jàpp nañu la war nekk àdduna war doxe noonu ñu jàmmaarloo ñoom nag ñoom ñor ay ngànnaay yow dëgër am ñu ne ci seen ginnaaw di leen dooleel moo tax bi su yàlla sàkk lu xew ci Touba dañuy wër ba gis ci ab safaan luñ jàppeeb safaan loolu la ñuy tasaare di ko siiwal te pourtant liy xew Touba ci lu baax la fay wàcc aw yiw bu fekkoon doy na xabaar buñ ne woon rek tey nañ def at mu jot ñu recensé ñi mokkal alxuraan ci Touba kenn mës sa dégg ab rajo mbaab télévision mbaab site bu def yitteem ci lool ñoom daal ñu ngay naan seen daara ba rey na dong ko am na ku njàpp muy bay bay yàmbaa ci biir këram am na yooyu la ñuy wax te pourtant lii sëñ Fallu ju dofe naan la téeméeri juma ak juróom fukka lu topp ngi ci biir dëkk ba bu ajjuma yépp ay fees ba ñu wutal leen ay mbaar loolu xabaar la de waaye duñ ko wax kon nag i'laam bu joonu meñ ñi suñ kanam dañu defi ñu war ko waajal lan wut bu demee ne moom ay kër tos xabaar yoo xam dañuy bind dañuy génn image dañuy wax fexe ba li baax te nit ci biir dëkk bi ñu di ko wane muy fés ndaw ñi xam ne am yaakaar waaye léeg lekk nga ne ci barab buñ lay wan yenn yi day mujj sa yaakaar day tas da nga jàpp ne dara baaxul kon ku yebbu noppalu fekk la baax lu baax doo nga fa nekk benn benn yi cee rax nag buñ ko fësalee ba mel moom doo nga fa nekk day doy waar te bu ngeen toppee xabaar day mel ne Tuubaa saa bu ngeen gisee ñu am ca xabaar bu ñëpp di wax. télévision yi ak rajo di ko wax rek ab safaan lay doon loolu nag jàpp naa ne defi bu ne ci suñu kanam bu mag a bu ñu war a bàyyi beneen bi ci des mooy ñun dañ fay nekk ak yeneen force yoo xam ne sunu nekk arrangé wu leen ñooñu nag duñ dox ci luy tax ñun ñu jëm kanam gis nga ñi fi nekkoon di. Euh, jaxase sëriñ bi ak tubaab bi ba lu bari xew ba yóbbu sëriñ bi ay nit am na ci loo ne jëfi ay nit mag ñu bari fii doon nañ leen génne seen dëkk di leen tere njàmbur ak kajoor ngir jaxase leen tubaab bi war nañ ay yàqkat lañ ay nangam lañ ba tey yooyu jógu fi am na force yu fi nekk ba tey bu ñu sañoon yoon wi doole ji mu am bennoo gi ne ci moom yooyu yëpp dañ koy ñàkk ku nekk ak ñu mel noonu nag war ngaa gën a wayal sa bopp war ngaa mbaa ngay wax loo xam ne ñoom mën nañ caa jaare profité ca ngir jaxase ak àdduna te léeg nga gis tuuti rek nit juum dara rek dañ ko exploité daal di voilà ñoom gis nga nii lañ mel kenn nit moo ci juum daf wala mu wax lu waxuut ñu tas ko ci àdduna moo taxit nag ñu war a bàyyi xel bu baax a baax léeg-léeg am ci ñun nag koo xam day jékki-jékki wax ba mu def loo xam ne nag bu ko ñeneen exploité rek mën naa yàq lu bari loolu jàpp naa defi bu ne ci suñu kanam yooyu yëpp nag bokk yi suñ ko bëggee saafara faaw ñu dellu ci la defaroon démb mooy defar tey mag ñi tarbiya ruuxiya moo leen defar Sëriñ Tuubaa day ñëw tarbiya leen ruuxiya ay borom xam-xam lañu ay kilifa lañu woon ñoom suñu Masamba Jóob Saam ñii ay kilifa lañu fii ñu nekkoon doon borom xam-xam mar yàlla tax ñun wuy ji Sëriñ Tuubaa ba mu demee ruuxiya la leen defar bañ gën tarbiya boobu nag ku fi baax moo la baax. ku fi baax moo la baaxal kon faaw ñu def yitte ci yar nit ñi seen ruux ba seen ruux di dund yàlla ñu tàggat seen yaram bañ nangoo liggéey te buñ liggéey ba daf ci def ko ci yàlla bi ci desee soxla nañ lool nag ay barab xam nga lii sëriñ bi indi war naa tasaaroo fu ne barab yépp ko war a am tey lee Maulana Cheikh Ahmadou Mountakha hafizahullah daf muy mu jamaa Cheikh Ahmadul Xadim li tarbiyat wa takwin nga xam ne njàng yépp la ci dajal wax ne daa bëggaat aw jiw ba tax mu laaj mag ñi am na sëriñ bi yépp ku ne mu jël fa gone ne daa bëgg lañ defoon ca mag ñi maam ya lu mel noonu ñu jëm ko def ci ñoom ngir ñu nekkat aw jiw ngir woote waraag fu mu waraag loolu jàpp naa ne ku ne ci barab bu ne war na fi daara yi daara ju mel noonu ne fa nekkal fi yoon wi njaboot ga fa nekk te ñëpp jotewuñu fële ñu yar leen ci tàggal leen ci te daa boole jàng alxuraan njàngum xam-xam ak yarub diine yi la boole tàggal leen seen ruux di leen zikkarloo di leen naafilaloo lu baax lépp ñu tàggal leen ci ba suñu génnee nekk ay rabbaaniyuun loolu sëñ bëgg ci daara jee nga xam ne dana tàmbali balaa yàgg insha allahu taala kon loolu it barab yi bépp war nañ ko mën a jël ku ne ci am ci bànqaas fa nga nekk loolu tax ñu mën a jàmmaarloog ñen ndax ñooñu bu ñu leen defaree ba noppi boo lëgee lu bon lu gis seexlu ko kuñ dajeel dañ lay sopp waaye dootu leen mën a soppi loolu jàpp naa lu am solo la bi ci des euh, soxla nañ wooteb sëriñ bii bu amee ñu ne ca bitti di ko gàkkal di ñu tuumaal daa fekk ñun dañ fa demut bàgg kon yóbbu ko fa waajal ay mbooloo ay boroomi xam-xam ci ay làkk yu wuute ginnaaw bu ñu xamee yoon wi tas leen nag ci àdduna ñu jàllale risaalab sëriñ bi wax nañ ne moom ci boppam daana wax ne man nit duma xam di ma bañ kuñ kuñ kuñ kuñ dem fi moom bañ ma rek dañ ma fa wanee wut ne ma mel loolu mooy li wér sëriñ Tuubaa koo ko wan ni mu mel du ko bañ ndax ak mbaax la te mbaax ku baax kenn du ko bañ waaye nag nag léeg-léeg wane ko ci anam goo xam ne du noona wala ab noon di ko wane loolu it toll na ci jamono joo xam ne waajal ndaw ñi liggéeyu Sëriñ Tuubaa bi mu liggéeyoon ci ndaw ñi mag ñi tey dunduk sàmm sàmm jëf sàmm war nañ ko bind bu leer nañ ñi tekki ko ci làkk yu bari ñu xam ni àdduna ñu baax ñi fu ne lañ ne fii ci Daaru Saam kilifaa yi koo xam ne donc taalibam Sëriñ liggéeyal na yàlla ci diine liggéeyal ko ci njaboot gi loo xam ne ba àdduna tukki nit ñi di ci jariñ loolu ñu tas ko ci àdduna ñëpp di ko gis bu ñuy lib kàngami ñu baax ñi seen tourné fa ci kaggu yu mag yëpp ñu yóbbu ko fa loolu muhim la war doon maa ngi bàyyiloo xel waa mubaaraka loolu ci liggéey la bokk ndax léeg-léeg ñu bind dara ci wolof bind ko ci arab baax na waaye doyul am na ci ñoo xam ne dañ leen war a fekk fañ nekk xamal leen ñoom Sëñ Tuubaa boo ko doon xamle tàmbul rek ci ay kàngamam bala nga ak si moom nit ñi baax loolu daal bokk na ci li war bàyyi xel mbokk yi kon bu ma doon tëgg danaa wax ne euh, soxla nañ waajaat waajaat waajtaay wi nag yaakaar ju rëy lañ ci am ndax Cheikh Mamadou Muntaxa mi xafisahullah indi na lu bari ci liñ jàppoon liñ doon wax ne buñ ci jaaree danañ am liñ bëgg dafa mel ne tege na teg na yoon woowu ndax sos daara joo xam nee na ab mu jàmmaa daa daa ëmb yu bari loo xam ne bu ci nit jaaree bu noppee jag ndax dala jàngal alxuraan jàngal la xam-xam tarbiyal ruux yeen waaye jàngal ay métier yoo xam ne médecine nga ca xarala yaa nga ca yu baree nga ci yoo xam ne nit ki su noppee boroom xam-xam lay doon nitu yàlla lay doon waaye nag nit ku jekku àdduna lay doon mën naa yilif réew mi mën naa yilif ay réew waaye ci diine ak jikko lay yilife te li ñu manqué ñun lool suñ nit yi àdduna yi li ñu naqare ci ñoom nga xam ne ay njaaxum rek waxtu ni ngeen dégg ñuy tudd alal jurul jaxu ñu sàcc ay ñaawteef di wax di weddi di def njaaxum amuñ jikko yu rafet dara dañu ne yarul yarul génn rek loolu nag li ko war a jeexal fii la war a bàyyi ko ñu defar ndaw ñi jàngal leen diine jàngal leen àdduna ba bu àdduna tegee ci seen loxo ñu man koo wamal ci tur yàlla loolu laa bëggoon wax maa ngi jéggul di balaax wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waxtaan wi bi ñu ko teewloo te bàyyi ko xel yëg nañ ne fees na dell ak njariñ ndax nit ku nekk la muy woote woone ca la nekk la ca jiitu war naa xam loola lan la ndax nit léeg-léeg mu doon mu bañ dara te fekk ñàkk a xam a tax mu bañ ko nit bu ne ab jullit la war naa xam lislaam mooy lan la ca munta ñàkk su ne am murit la war naa xam ak murit mooy lan rawatina la ca munta ñàkk loolu jàpp naa ne bu ñu ko bàyyee xel teg ko ci sunu kanam dana am solo loolu li sëriñ bi waxtaane tomb ba ci ëpp solo mooy ñu xam ne ak murit maanaam yàllaay laytaayam maanaam yàllaay kese la loolu day tomb bu am solo boo xam ne kenn ku nekk ci ñun ndox koo war a bàyyi xel xam ne murit wala ak taalube yàllaay kese la doonut loo xam ne ak murit day nekk fële lislaam nekk fële mu mel ni ñoom ñaar dañoo bokkul yoon wu ñu jaar nit munta nekk ab murit te nekkul ab jullit ab yéefar nu mu man di mel kenn du ko tudde am murit kon nekk ab jullit mooy laytaayi nekk am murit day ñëw rek gën a rafetal gën a mottali euh, yi mu wax nag ci gàllankoor yi nga xam ne day gàllankoor yoon wi te bàyyi ko ci sunu biir yaakaar naa ne kenn ku nekk ci ñun mi ngi koy dund mi ngi koy gis am na ci yoo xam ne ci biir kër yi lañuy fekk ñuy dund ak moom mucc ca dana xaw a jafe am na ci yoo xam ne ca bitim réew lay jóge ñu nekk ak moom mucc ci dana xaw a jafe waaye saafara si nga xam ne moom la tudd rek mooy bunt bi nga xam ne bu ñu ci jaaree mën nañu mucc ci yu bare bare te mooy jiima jàngalaat nit ñi jàngal nit ñi ñu xam ñu toll ci jàng ñu yóbbu leen ci barab bi ñuy jànge te tànn barab ya nga xam ne fa lañ leen di yóbbu nga xam ne buñ fa jàngee man faa jànge diine waaye man faa amaale tamit yar boo xam ne dana leen may ñu mën a nekk ay royukaay yu mat sëkk ba ëllëg beneen barab buñ mën a dem mën a jeexital ca ñooñu fay fekk te ñooñu duñ leen soppi ndax loolu moo doonoon jubluwaayu sëriñ bi ci yar comme nopp ci yow foo dem yaay defaree yaay soppee waaye kenn du la soppe te loolu ci say waxin ak ci say doxalin rek ca lay doon ñi weesu gàddu ay téere wala dem ca daara ja toog di jàngit ñu fexe ba wutal leen yoon wuñ wuñ mën a jaar ba mën a jàng ba lum gàtt gàtt li mënut a ñàkk ci seen diine ñu mën koo xam jikko yu baax yi nga xam ne mënut a ñàkk ci ab jullit ñu xam ko ndax sëriñ bi noonu la doon dunde ak taalibe yi saa bu toogee ak ñoom fexe ba jox leen loo xam ne koo xam ne jàngul sax wenn xaraf yow boo jógee da nga ko mën a daal di jëfe te loolu ci xeetu jàng leen yi nga xam ne jàngale wu am jeexit la wu mën a jariñ ki ñuy jàngal la mooy képp koo xam ne ni yaa ngi jiite mbooloo nga tàmbalee ko ci sa kër ba kii yilif mbooloo mbooloo moo xam ni ñu mën di toll mu fexe bay ñooñu aju waaye yàlla moo leen boole ndax bu doon àddina kese rek am na ñeneen ñoo xam ne ñoo ci gën a xereñe ñoo ci gën a mën a lijjanti waaye diggante sëriñ ak taalibe yàlla moo leen boole te loolu de delluwaat ci li mu ubboon waxtaan wi ne yoonu murit woote la boo xam ne bu yàllay kese la kon nit ki dafa ñëw ngir sëriñ bi defar xolam defar ay jikkoom ba mu set mu mën a nekk ku àgg ci yàlla jaar ci yoonu ni ñu baax ñi te bu jaaree ci yoonu ni ñu baax ñi addinaam dana jag ëllëgam mën a jag ndax su baa danañ ko yar mu war a xam ne dafa war a liggéey di dund liggéey tamit di jariñ nit ñi waaye tamit di jaamu yàlla ngir mën a jariñ boppam waaye tamit di yar ay nit ngir mën la ne jariñ ba moom bu ëllëg bu fi jugee tamit yoonam woowee wala loolu mu doon liggéey du du taxaw waaye dafay bàyyi ñu koy mën a wéyal sëriñ bi tamit yoon woo la jaar. mooy nekk ci li mu war a nekk yar ci ay nit jóge fi ñooñu mu yaroon ñu wéyal daara ji wala wéyal liggéey bi liggéey bi taxawut ba suñu jëmi tey ji loolu nag la ñu war a xinte wala ñun ñëpp kenn ku nekk bay ca lam ak fam ca mane mu góorgóorlu ci kon sëriñ bi ñu ngi rafetlu bu baax waxtaan wi am na solo lool